auzu billahi mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaanal suñu waajur bu jiitu yàlla yërëm waajur di ñaanal suñu waajur yi fi des yàlla may gudd fan ak wér ba yéene yi njaboot yi am ci ñoom yàlla dimbali njaboot bi ñu ko yeggali waaye assistance bu baax a baax dañuy puisque lamb mooy ñàkk Sénégal mooy ñàkk su ku ne xam na lu mu def ci lamb di ko jaale axul lamb di ko jaale njabootam yëpp di ko ñaanal moom it yàlla ko xarit ci lamb muy kii fa am daal waaye Syrie ak Turquie di ñaanal ñu fa jënd àdduna jullit yëpp yàlla yërëm leen xarit ñu ci am ay gaañu gaañu yàlla wéral leen di yëpp di nuyu nag assistance bi fekk fii mooy di ci jiital journaliste yi di teg ci nuyoo yi euh, Malick Thiam di ko teg di ko seetloo di nuyu manager yi ma fekk moom sama manager di manager bu Boy Niang président Rock Énergie xaalis moom fii staff bu mu àndal mooy Rock Énergie ak bépp écrit bu nekk parcelle di nuyu Sénégal yëpp di nuyu parcelle la woon si si ma jógee rawatina unité 10 bi ma dëkk di nuyu waa Lac Rose ñàkk ñàkk olof ah dégg nga benn ak Kër Mayram Beng ak bënn ba di nuyu waa Yoof Cambérène Mbor Wakam Yoof ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu ñuy Serena partout dans le monde waa États-Unis France Italie Espagne partout dans le monde daal nuyu da ngay jiw di nuyu sama fan club bi nag muy xarañ famille ah xarañ sans frontière di nuyu ñëpp di nuyu suma adversaire muy Boy Niang di ko ñaanal jàpp ñaanal ko sa bopp di ñaan yàlla ñaanal may tal ak fekk yéen yiñ ci am yàlla mottali ko incha allah di nuyu encore Makan Mbengue di ñaanal suñu papa Gaston yàlla defal ko tawfeex ba mu dellusiwaat ci njaboot bu baax waaye di ñaanal Makan di sumb yàlla na ko dugg ci alhamdulilah génn dugg ci bisimilah génn ci alhamdulilah rabbil alamin ba yéen yim ci am yëpp yàlla def ko di nuyu di gërëm suñu di félicité suñu lion yi mooy champs yi bi ñu jël keroog di leen félicité yàlla na leen jig te yeneen Modou gars yi dañu waxoon ni bàyyi bëre da ngaa nar a yor kurus ak sigaar waxal Sénégal. waaw xam nga Sénégal moom da koy xaw da koy xaw a parce que li fi tuuti nekk suñu bopp nag. dañu boobu nag tey nekk kumpa ci nit ñi ba tax lu nekk dañ koy wax mais daal ñun ñoo ngi ci luñ war a nekk daal. mais mais ci la la nekkoon. man dama am benn question Malick. mooy ban. parce que yaa wax léegi ni quatre ans bëriwul. mi ngi ko mi ngi ko jëlee woon Pikine kon nag Pikine boo koy bëriwaat yaa ngi ko jëlee woon ci Eumeu Sène doon ko mu daanu mais xale màgg na ñëwaat na mais li Pikine la woon Pikine la Pikine la nekkoon.

waaw loolu la yàlla def ci loolu rek damay nuyu suma frère Ama Baldé di ko di ko ñaanal jàmm bu baax waxtaan ak jàmm ba continuer activité bi di nuyu mbëru Pikine yëpp comme ni ñu koy waxee yaa wax léegi yaa leeral lépp da nga ne bu ma bëree ba pare da nga approché son papa wax ko ci combat bi boo xam ne ñun ñu jël combat bi parce que moo ñu ngi ci contrat ak Ama moo xam aussi ñun li ñuy dugg balaa ñuy dugg dara dañuy waxtaan ak magu Pikine yëpp parce que Pikine ñun ñëpp ñoo ko bokk dañ ko partagé te bu ñu nekk dañuy génn kenn génnewul ak sa drapeau fu ciy génn drapeau biir ngay génn donc nag du ñu nangu mu ko drapeau bi gën mu suuf wala mu arrière wala mu dellu ginnaaw dañ ciy jaayante ba fu mu yem nekk ñu ko waxee rek yàlla dogal na moom am na waroon bëre combat bi ñu bëri laxu si yàlla def sotti waaye ñun balaa ñuy avancé dañ ci waxtaan dañ ci war a waxtaan ñu nekk suñu yóbbu wax lu ci communiqué wu ci ba boo gisee rek bi nga xam ne làmb mu affaire day jantal mel na te waa kër Ama Baldé dañoo war a baax a baax ama maa ngi moom toll nañ ci làmb foo xamante ne ñoo bokk adversaire damay bëri jox mu bëri wala mu bëri jox mu bëri loolu la moo fi nekk donc affaire yi man mu bëggoon sax bu nekk loo xamante ni à partir bu ñu ci waxee dara ñu bëgg ko waaye loo xam ne jarul ñu si communiqué sax parce que ñu ay frère lañu waaw man ak ama yëpp dañ nekk ay mbër yoo xam ne dañoo ñëw fekk dara dafa ñu jàng ba yegg si waaye ñu góorgóorlu suñu papa yi sonn ci làmb ñu tam seen bëñ ci làmb ñu dooleel ñu tabee ñu nag ñu daj la ci làmb donc lu ñu am dañ koy yóbbu suñu waaye nag gars yi bari nañu donc li ma amee yéen pour am lu bari ci am moom laa ko amee yéen ko am ko yàlla xam na donc lu ma ñaan bu wér ak jàpp rek laaw nag dama nekk bu ma paree ci bàll musuma taxaw na ne ma jox moom bu bëri ak moom waaye yàlla rek moom ko indi moo war a bëri ak moom booy bëri bàll tam amul kenn bu nekk ci làmb xalaat ni maa ngi woon dañuy bëri donc laa yàlla nag bu tegee dara day xam ne loolu teg daal waaw suñu borom nag maa ngi ñaan moom moo indil lii moo xam ne dañ ci amul daal mu yàgg ba tax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf ayca euh, El Hadj Lamine Samba dafa am question bu mu laajoon sànq. grand nga ni. loolu moom dégg na ko bi kii. dellu si waat a nekkaat biir alhamdulilah reprendre nañ suñu entraînement bu yàgg puisque suñu dëkkandoo ñu am combat ñooy yëpp ci jàpp ba tax na Pikine laa ko jëlee dugaat Pikine loolu loolu problème lamb comme lu koy ñaaw rek sometimes di nga am ki nga xam ne sa adversaire fu muy fu muy gën a bëree te man sama souhait loolu xam ne su ma leen déggee dugg ci la am benn at la wala ñaari ay génération lañ xëy na maa ngi dégg bëree ko doon xam mais moo nekk bi daal ma def na làmb ji du Modou Lo ay Modou Lo Modou Lo lan la leer naa làmb ji dafa war a ubbeeku te sama bëgg-bëgg loolu la woon nuyu monsieur le maire di nuyu oustaz di ko wax oustaz monsieur le maire waaw ah <laughs> yaa wax rek di di nuyu oustaz di ko wax kay faxaalu ka taarama raytu ka wala kin taarama saraytu ka tafatan min al riyaadi yaa si waaw euh, en tout cas <laughs> Modou euh, tey nga jël ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro 2 mën nañu ne depuis nga euh, feeñaat Boy Niang Balla Gaye sa staff wala boog leen ci sa staff ñoo jëkk génn laaj ki nga xamante mooy Boy Niang déclaré pour bëgg bëri ak moom te dañu gis ne toujours fu Balla Gaye échec rek Modou Lo day ñëw bëgg fa réussir comprendre nga bu baax a baax Boy euh, gis ne combat bi euh, fi mu yàgg daal ci ci ci daal lan moo waral loolu bien vrai que ne yéen a ngi dem da ngeen di waxtaan ci seen biir euh, ak nu mu demee lu tax boo toujours mënuloo day sawar ci koo xamante ni dafa daan boo ko ndax yaa ngi si bàyyi xel mënuloo. Ah, waaw amiin ci oustaz bi parce que ku nekk moom bëgg nga am xam-xam bay bay jàngale. xëy na ku mën tax la ko rek wax la moom. di gënal yàlla mooy ñi jàng ba pare di jàngale. yàlla mooy yàlla mooy xam-xam mooy jàngale loolu sant yàlla la quoi. alhamdulilah ak li ci toog waaw dañu gis ne. Euh, bi Boy Niang jëlee ci Balla Gaye numéro 2 daan ko leen ci sa staff wala ñu la jege dañu gis ne euh, gis nañu ñu gën ne bu bu ñu leen joxee Boy Niang jël ko. ba loolu si defe naa ba tax na sam la nit ñi xam ne làmb bu jaalu rek mais pas may taxaw di laaj ko ñaaw la su may sax non dañ te combat la sax quoi moo tax dama def ay preuve am ñun tamit ñu bëri am fu ñu yegg lamb boole ñu ñu war a bëri. lu tax ngay sawar ci fu Balla Gaye ese. non loolu yaa yaa ci bàyyi xel man bàyyi ko ci sax ak toog dëgg yàlla koy am na toog ne wala ay gaaf nga bàyyi ko ci xel vraiment. booy naa waxaale bi yàggoon na trop ba nga ne ci yow la gën a yàggee est-ce que xam nga ne Modou Lo dafa sawar ci koo xamante ni euh, dafa daan Balla yaa ngi ciy bàyyi xel. waaw maa ngi ciy bàyyi xel mais dama gis benn affaire boo xam ne yéen a koy wax. il faut que ma wax ci dafa ne ngeen woowee Modou Oustaz boo ku nekk ni du ko neex waaye àddina ñun ñëpp ay julli lañ te ñun ñëpp dañuy bu ñu sañoon dañuy wooye Oustaz parce que ñun ñëpp foofu diine man man ni booy naa man nitu daara la man suma ay maam suma ay nijaay yëpp ay xaar saaku la donc nag man nitu daal donc diine dafa am solo diine avant sport sport après la war a ñëw donc loolu moom. parce que bu ñuy woowee Modou Sarr wala ñu bëgg koo féete rek diine bi dafa mel ni ñu bokk ñu ñu ñoo ko gën a bëgg diine bi ñun dañuy waaw ñun dañuy dañuy dañuy jaamu yàlla teg ko ci yoon xam ne lépp bu jeexee suñu borom moo fi nekk donc loo bëgg ñu bàyyi xel bu baax a baax loo ko dàq julli fu mu ne yàlla <laughs> noonu la demee beneen bi mooy comme li nga wax rek. yàlla dafa dogal ma jógee ci Balla mag Modou làmb moo ñu boole rek làmb moo ñu boole ñu mën a bëri boo xoolee rek boo bëree fan rek dafa fekk Sénégalais yëpp ak amatul làmb yëpp dañ bëgg suñu combat parce que combat bu neex la maanaam moom yëpp ay bërekat lañu waaw moom moo ñu tàkk bëri tamit ñu ay xale lañ ñu ngi jàng bëri waaw ba te yàgg nañ ko gis muy bëri xam nañ bu ñu bëree bu ñu bëree na neex te xam nañ combat bi dañu xeex nañu bëri amatul nañu kontaan parce que loolu la ñuy xaas man xam naa ko bu baax ne xamante ne xaar si ñun xaw ma nag mër ba xam naa ko bu baax waaw gars yi dañuy wax ni combat bi combat négociation la dañuy bëri dañuy xeex incha allah moom la ñëpp di xaar ci ak incha allah. ayca combat lu tax négociation yi yàggoon euh, ci sa côté. waaw comme noonu la rek xam nga koo ñaaw ma dafa am staff am ay kilifa am yu nekk suma ginnaaw boo xam ne Makan mu ngi la wax nii sax moo ko laal négociation bi dem na ba avancé bañ finaliser tamit sax waxuma ci dugal ma ci suma kàddu parce que nit moom doo joxe bopp di rocci laamin daal maa ngi nuyu ñoom Abdou Kane bu baax famille Kane yi nga xamante ne ñoom bëgguma ñu tudd seen tur te ñu nekk rek di jàpp di bu baax a baax nekkal boo ñaa maa ngi leen nuyu bu baax gis naa taxawaay bi yàlla moo def loolu rek négociation sotti woon ñu nuyu suñu papa Laaji Mansour Mbaye moo dox ci médiation xam nga makan moom it dafa commencé bëgg lu yomb yow bu ñu rek danañ ci Mansour Mbaye waaye moom bu ëllëgee da nga koy teg ci bi noonu la ñu koy nuyu moom bu baax a baax nuyu suñu papa Mansour Mbaye ak suñu mbokk géwël yëpp di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay mais loolu la ma taxoon mu yàgg mais amul benn problème ñu lay xale dañu bëri rek mooy suñu métier incha allah